yéen mbokk yi maa ngi leen di nuyu lu bari te di leen sant di leen xamal ne e, ca gannaaw la waa kuréel bi xamle ne li ñu bëgg ñu waxtaanal leen ko ren ci wàllu Sëriñ Tuuba moo di dañoo bëgg ñu xamal leen Serigne Touba ak ñi nga xam ne ñi ñoo jamonoonteeg moom loolu nag bi ma ko déggee sama xol sedd na ci guy ndax daaw bi ñuy def semaine culturel bi dañoo wax ne fokk Moustapha danañu ko jox ab suise wante sujet bi ñu koy jox moom bu ñu ko waxloo ci Serigne Touba day wax lu ëpp ba tax na duñu ko waxloo ci Serigne Touba xalaatam dañu koy dugal ci kàmb goo xam ne gii yaakaar nañ ne du war a xam ca loola dara loolu moo tax ñu war ko traité loo ab sujet boo xam ne bu ca duggee dana gàtt wala bu it du wax lenn loo xam ne lii ay xalaatam lay doon ci sëriñ Touba ñu daldi nekkoon nag léegi nan ko sant mu waxal nu ci sëriñ Touba ak kilifay diine yi nga xam ne yi ñoom la jamonoon teeloon ci Sénégal kenn ku nekk fa nga ko tegoon ci kaw sartas fanweeri nit la ñuy indil yoo xam ne yi dañoo jamonoon sëriñ Serigne dana ci indi ñoo xam ne ñi ñoo sëriñ Mor Anta Sali ñoo bokk ay at maanaam ñoo war a maase ci ci saayir nga xam ne waajur la ñuy war a doon ci sëriñ Touba ci saayir te mu wax nu ñooña la jàppe woon sëriñ Touba ak la doxoon digganteem ak ñoom moom bu ko defee nu door a ñëw ci ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teeloon nga xam ne dafa maase ak ñoom ci ay at ci saayir mel ne Cheikh bu Kounta ak eh, si Alxaaji Malik ak ñooñu nga xam ne ñoo war a tolloo ci ay at mbaa li ñuy magaate ci atti saayir bariwul lool ñoo ñooñee mu indil nu ca ay nit te la mu indi itam mu wone ne diw moomu nee na ci Sëriñ Tuubaa nangam ak nangam ak nangam ñooñee muy jamonoon telit te ñu war a tolloog moom ci at ci saayir itam taamu wuñ ca mu indi ay sénégalais képp fokk mu indi ñeneen ñu dëkkul Sénégal ñaareel ba itam ci biir ñooñu mu jamonoonteel dana nu ci indil ñoo xam ne ay jullit lañu ñu jamononteel moom ak ñoo xam ne ay yéefar lañu ñu jamonoonteel moom te kenn ku ci nekk mu indil nu la nga xam ne lii moom la wax ci Sëriñ Tuuba foofu la ma la ma dugaloon te fekk nañu man bu fekkente ne dañu ma bëgg a dugal ci kàmb wala ñu dugal ma ci loo xam ne jàpp nañu ne war naa ko waruma koo mën a traité ba ñu jox ma loola it fekk na man duma traité dara Serigne Touba mooy traité ma daldi leen tànnal fanweeri nit yoo xam ne yi tudd naa ci ñoo xam ne ñi ñoo Serigne Morante Sali ñoo jamononte woon ñoo maase gis wax naa la dox digganteem ma seen diggante ak Serigne Touba tudd naa ci it ay nit yoo xam ne ñu jamonoonteeg sëriñ Touba la tamaase ak moom te bokkuñoo ak moom aw yoon kenn ku ci nekk fa nga teg Serigne Jalle ak moom. indi naa ci it ay nit yeneen yoo xam ne yi Mauritanie lañ dëkk dëkkuñ ci réew mi ba indi naa ñeneen ñu nga xam ne ñi sax ña nga dëkk Beyrouth indi naa ci it ñi nga xam ne ñi ñoo jamonoonteeg moom di ay ay buur yu fi nekkoon maase ak moom ci ak ci saayir ak buur yoo xam ne ñu ngi maase ak sëriñ Mor Anta ci saayir nett li la nga xam ne lii moo moom lañu moo doon dox seen diggante ak sëriñ Touba ak fañ jaar ak moom ak nañu ko respecté woon ak nañu ko fonke woon loolu nag noonu laa ko séddalee moo tax bi ñu mënee li nu taamu ren moo di nga indil nu sëriñ Touba ak ñi mu jamonoonteeloon te ñooñu bokkuñoo moom aw yoon toppuñu ko kenn ku ci nekk fa nga ko tegoon ak na nga ko jàppe woon la la lanu bëgg nga indil nu ko loolu nag moom laa leen indil tey yi pour bëgg waxtaane ko ak yéen dama wax ne xaadimul rasul dama wax ne xaadimul rasuul ak dundam dund la goo xam ne gi egg na ci ak kawe kawe goo xam ne gi loola moo tax mu nekk di misaal moo xam ne mi nit ñépp yéem na leen ci wépp melow yiw ak gépp mat ci mbañum rus akuk sell ak xikam ak xam-xam ak setu làmmiñ ak toroxlu ak maandu ak tabe ak ragal yàlla ak dëddu àdduna ak ñeme ak jokk bokk ak yërëm ku néew doole ak ñeewante jiri ci jirim ak miskin yooyu ma lim yépp Sëriñ Tuubaa da ca raw ñépp loolu moo taxoon mu am martaba bu kawe ci respect boo xam ne bii am na ko ci digganteeg ñi mu jamononteeloon ak yéemu goo xam ne gi mboolem ku mu jamononteeloon suwaa nga mag ko walla mu mag la wala ngeen tolloo ci at ci saayir itam am na respect bu dox sa diggante ak moom ak yéemu gooy yéemu ci mbiram ngir melokaan woowu nekk ci moom suwaa ñu di ay jullit suwaa duñu ay jullit suwaa ñu di ay sénégalais suwaa duñu ay sénégalais loole lépp la ko waral moo di rafet gu muy rafet gu mu rafet jëflente gu muy jëflente ak doomu aadama yi ak maandoom ga nga xam ne maandu na ko ci diggante bindeef yi maandu goo xam ne gi ku néew doole ak ku am doole ca yam ku ku ku ku baax ak ku dëng ñoo ca yam képp sëriñ Tuubaa daana jëggal koo xam ne kii dafa juum daana def ku ko defal lu baax mu fay la lu baax ku ko def lu ñaaw defal lu def lu ñaaw itam mu fay la lu rafet ndax amul lu ñaaw moom yaataloon na ab dëndam ak jikkoom ci nit ñi ëmbaloon na aw yiw mboolem bindeef yépp itam daana sonne way tumuranke ñi daana fonk mag ñi daana yërëm gone yi rawatina nag koo xam ne kii yëg na ni kii ku yàlla defar la ci doomi nit ñu baax ñi ak boroom xam-xam yi loolu moo taxoon mu xam lu mboolem li ëppoon ci ñi ñi nga xam na ñi waroomi xam-xam lañ ak ñi nga xam ne ñi waroomu defaru lañu ca waxtu wa nga xamee ne ay atam bariwul lool ma tàmbalee ko ci eh, bàyyi bàyyi bu ndawam bi ñuy wax sëriñ Samba Tukulóor Ka nga xam ne moo sëriñ Mor Anta Sali seen ñaari ndey ñoo bokk ndey ak baay kooku moo jur sëriñ cheikh ka moo jur mu jur bàcc ka ak sëriñ mbàkke ka ak ñooñu nga xam ne ñoom sant ka sëriñ sàmba tukulóor ka moomu yaayam ak yaayi sëriñ mor ante sëli ñoo bokk ndey ak bàyyi moo ko doon jàngal xam-xam moo ko jàngal laxdari ak risalaak téere yi jëkk ci ba muy door a tàmbale jàng xam-xam kooku xam nga ne kooku moroomum sëriñ mor ante sëli la ci ci ay at war naa mën a keña wax ni wattandiku leen Serigne Touba ndax du seen moroom ndax nun ñi koy jàngal sax du sunu moroom loolu xam ngeen ne kon sëñ Samba Tukulóor ka mi nga xam ne mii waajur la ci moom te li ëpp ci njàng moo ko jàng jàkka jàngal loolu la seereel Serigne Touba xam nga ne kooku defu ko moroom kooku ku ne xam na fam ko teg nu daldi jàll ci loolu seere la ci sëriñ Sàmba Tukulóor Ka moomu nga xam ne maasu sëriñ Mor Anta Sali la ba noppi jëkkoon koy jàngal gis ngeen fi nga xam ne fi la tegoon xaadimu rasul nu daal di jàll ci xaadu yi ma jaxate kala xaadu yi ma jaxate kala ku ne xam na ne Lat Joor da koo defoon xaadu yi defoon sëriñ Mor Anta Sali it xaadu yi sëriñ Mor Anta sëriñ bi daan ko tere ci kaw mu nekk nangu nekk xaadi Lat Joor joo xam ne ji ju wér la ba loolu moo taxoon bi mu ñëwee itam jóge Saalum Lat Joor ko ci dëkk bu ñuy wax Pataar mu nekk fa par altene bu nekk mu bàyyi donga yamuy jàngal ñëw ci kër amadu Yàlla di atteel Lat Joor ba altine jotati mu dellu si lu dul altine jooju nag da daan toog foofa di jàngal ay ay ay ay am njàngaleem nit ñi di ko fekk si mu di leen jàngal loolu la woon ak Lat Joor ma jaxate kala nag nekk ak Lat moom ci biir dëkk bi ñuy wax kër amadu Yàlla ci biir loolu nag ku ne xam na ne ma jaxate kala wàll fànn gu ñuy wax aro muy poésie moo ko dàqoon ci jamono yooyee Sëriñ Tuuba nag daan dem di def ay bay di ko ko yët mu di ko ko toppal ci biir topp googee nag daana ko ci dindil léeg-léeg ay yàq leeg léeg it du ko dindil ay yàq ba dee mujj ne ko lépp loo xam ne lii defati nga ko na ko indi ngir ma mokkal ko waaye looy def lu ma war a mën a dindi yàq amul daana ko waxit ci kaw fonkeel gum ko fonk ak respect bu mu respecté bu mu ko respecte it daana ko wax ne yow de maag sa baay yaay sunu ma noo la jur wante yaay sunu baay léegi maag sa baay nooy sa sëriñ ndax noo la jàngal man maa la daan jubbantil say way moom it moo la jàngal li ëpp ci alquran moo lay jàngat li ëpp ci xam-xam wante yaay sunu sëriñ ndax li nga xam xamunu ko ci biir loola itam tagg na ko ci genn xasida goo xam ne gi wenn bayit wi may bëgg a tudd ci xasida googee la bokk xasida googee dafa ko tàmbalee ne min nii bamba taariki naasi xayra al ilahi fa amsa sayida annaasi sama xasida gi maa ngi ko jëme ci cheikh ahmadou bamba cheikh ahmadou bamba mi nga xam ne bàyyi na fàtte na it lépp loo xam ne doo yàlla bàyyi googu mu bàyyi fàtte lépp loo xam ne du yàlla ci la mujj di sangu mboolem bindee fi loolu itam moom la ko xaadu yi ma jaxate kala seereel kon wax naa leen yi fi mu tegoon Serigne Touba wax naa leen Serigne Samba Tukulóor Ka itam fi mu tegoon Serigne Touba. bi Serigne Touba ñibbisee ci géej gi dafa wax Muxtaar Jaxate doomi xaadi ma Jaxate kala ne ko waaw sa baay bi mu yëgee ne tubaab yi dañu ma jàpp interdit ma yóbbu ma Gabon lan la wax mu ne ko sama baay de ba mu yëgee ne dañ laa jàpp yóbbu la Gabon dafa yéemu lool sa jaaxle dal di wax ne ah cey bu ma ko xamoon kon day danaa ko jote ak lu ma am ak képp koo xam ne kii nangul na ma ci jullit ñi ndax moom dong day moom rek moo mën a jot lislaam ku nekk mën naa génn àddina lislaam dund lislaam dund day ba mu des moom moom ci boppam day bu nekkul ci àddina rek lislaam booy ba mu yuuxu yaalal islaam wa yaalal islaam wa yaalal islaam way ngal la islaam ngal la islaam ginnaaw jàpp nañ Sëriñ Tuuba fu lislaam jëm ne ko loolu la sama baay wax sëriñ bi daal koy tontu ne ko sa baay de noonu la demee woon ak man dafa ma fonk lool sa bëgg ma loola nag dafa xam li ma doon ci lislaam wante nag xamul ne tukki boobu mooy sababu wépp yiw woo xam ni maa ngi ko doon sakku su ma tukkiwul tukki tukki boobu kon li ma am duma ko am wante li ma doon mébét daal mooy mu dundoon ba taxaw ci li nga xam ne lii moom laa am jële ko ci tukki boobu nga xam ne moom laa tukki woon te mu yërëm ma ca te ñeewante ci man noonu moo nekkoon diggante Sëriñ Tuuba ak ma Jaxate Ka Kala ak Masañ Samba Tukulóor Ka am na beneen waaye bu ñuy wax Xutbu Diin Cheikh Abdul Qadir ak Tuuba wi mooy maami Cheikh Moodu Fóode jaabi gasama bale ca Casamance ca Marsasum ku ko déggul it xam nga ne kooku fóore la xaa aalim la bu rëy a rëy Mamadou Fodé moo doon kon sëriñu Cheikh Gassama bi daan wax ci rajo bi Cheikh Gassama lu mu masaan xam sëriñ boobee moo ko ko jàngal kooku egg na ci sax ñu di ko wooye mufti Sénégal Mamadou Fodé Diaby moomu baayam ñu di ko maamam ñu di ko wax Cheikh Abdoul Qadir kooku xam nga ku war a maase la ak sëriñ sàmba sëriñ Mor Anta Sali kooku moom itam lii moo doxoon digganteem ak sëriñ Touba sëriñ Touba dafa masa ànd ak sëriñ Mor Anta Sali ñu ñëw fii ci dëkk bi ci Ndar jamono yooyu sëriñ Mor Anta ñu ñëw ci dëkk bi jamono boobu fekk Cheikh Abdul Qadir moom miy sant Gassama di maami Mamadou Fodé Diaby Gassama ma ca Marsassoum ñu tase fii ci dëkk bi yàlla atte kooku defoon nit ku baax koo xam ne kii ñu bari sax daanañu ko jiiñ ak wilaya moom Cheikh Abdul Qadir Gassama moomu Serigne Mor Anta Sali daal di jiital sëriñ Touba jamono yooya ci fukki at la war a toll wala juróom-ñetti at jiital ko ba egsi ci Cheikh Abdul Qadir Gassama moomu mu ne ko dama ba yàgg mu ne ko kii jër la ñaanal li yàlla bind ci yiw lépp mu ngi ciy loxoom dana nu dox ba muy ba àdduna bépp tege ci digg digg tenqam loolu itam wala sëriñ Tuuba mu ñëw Tuuba waaye ba mu géntee gis loole nee na mu daal di xëy moom moo du ko di jaabe gasama moo ma ko nettali sama xarit la lool am na benn téere sax bu mu def ci fànnul fiq daal di ma koy jox ne ma daal dama bëgg nga defal ma ci sa sa taqrir maanaam seetal ma noo nga gisee téere bi su fekkente ne d'accord nga ci téere la bu am maanaa bu ñu war a móol fekk fa cheikh mohamadul moustapha ki nga xam ne kii moo nekk premier xalif cheikh ahmadou bamba bi mu ñëwee mu dal ci moom mu dal di koy booleeg ndaw mu dem ziyaara ji xabru cheikh ahmadou bamba ba mu fa toogee nee na ma xasida gi laa tagge xaadimu rasul dama wax xaadimu rasul ne ko yaa rabbana zurna xabibaka ahmada من كان فينا قدوة ومسددا من كان في علم الشريعة جهبذا ومحققا ولكل ظام موردا من كان في علم الحقيقة عيلما ولطرق أهل الله صار مجددا يا شيخ أحمد قد أتيتك زائرا من بعض أرض إليكم متوددا فلأجل حبك للإله وللنبي إني أحبك لن أكون مفندا لله ما أجليت عن سنن الهدى وأبنت بالتحقيق فيه مجددا وخدمت خير الخلق أصدق خدمة حتى حويت ونلت منه المقصدا فجزاك عن أعمال برك ربنا خير الجزاء وأدام عقبك سؤددا ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل مع أصحابه ومن اقتدى بما نويت فوحن يو سرين يو سنو بروب نونغي لي سيرلو يو يالا ني سيري سياري نانو وخ احمد بامبا موي خادم الرسول moom Ahmadou Bamba xaadimu rasul mi nga xam ne mooy sunu royteef mooy ki nga xam ne kii ku dëng moo la gindi moom mi nga xam ne mii mooy gindee ci xam-xamu sharia mooy ki nga xam ne kii moom rek a wéral mooy ki nga xam ne kii mooy rotukaayu képp koo xam ne kii dafa mar moom mi nga xam ne mii mooy fekk yoonu yoonu nit yàlla yi moo di ko yeesal moom dong nga yeesal yoonu yàlla yow xaadimu rasul dikk naa la ziyaare la ngir gis googee mala gisoon ci guddi yaag sama maam jooje muy abdul qadir tuubawi jóge ci réew mu sori sopp la rek a tax ma ñëw ci yow ngir bëgg la ngir yàlla ak liggéeyal goo liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ma ñëw siyaare si la na la wóor ne maa ngi lay xamal ne bëgg naa la mbëggeel gu metti gu tar maa ngi giñ ci baat barke yàlla ne li nga xam ne lii moo fi nekkoon di aw jub di yoonu jub te lëntoon jaxasoo lépp wuññi nga ko leeral ko ba mu ne fang fangaaral nit ñi di ci jariñu liggéeyal nga xaadimu rasul liggéeyal nga rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam liggéey boo xam ne ba àdduna sosoo ak tey nit mësu ko koo liggéeyal loolu moo tax nga làq li nga làq moo tax nga am li nga xam ne lii kenn amu ko li ma lay ñaan daal moo di sa jëf ju baax ji nga jëf yal na la ko yàlla fay ngën ji pay te saxal sa ñi nga fi bàyyi muy sey doom ak say sët ñu sax fi di ay sang yoo xam ne yi dañuy gindi nit ñi ba abadan yal na yàlla xéewal rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñooñu ma tuddal ñépp ci ñi waroon a maase ak sëriñ Mor Anta lañu ci saayir kenn ku ci nekk wax naa leen ne leen ku ne xam ngeen ne ci saayir ñoo féete ak mag sëriñ bi waaye ku ne xam na ci ni ma waxe ku ne xam na ne ñooñu am na fu ñu tegoon xaadimu rasul bokk na ci ñi nga xam ne ñii euh, jamononte woon nañu ak moom te maase ak sëriñ morante salit ku ñuy wax Cerno Birahim Kan Cerno Birahim Kan aalim la bu rëy boo xam ne bi xaritu sëriñ morante salit la ñoo bokkoon di jàng Thierno Ibrahim Kane moom la ñu tuddee maam Thierno Mbacke maam Thierno Mbacke Thierno Ibrahim Kane tukulóor boobu bokkoon ak Serigne Morante Sali di jàng moom la Serigne Morante Sali tuddee kon koku itam war ngeen a xam tollu ay ba mu toll ci Serigne Touba kooku mi ngi bokkoon ci taalibe yi ku ñuy wax Mohand Baba Mohand Baba bokk na ci fóore yi gën a ci Mauritanie kooku itam ci ñi ëppoon xam-xam ci Sénégal la bokk muy Thierno Ibrahim Kane moomu daana wax sëriñ Mor Anta Sali ne ko sunu doom jii de muy Cheikh Ahmadou Bamba xalset naa doon sunu ndam nu di ko damoo ci àddina ngir li ma xam ci moom ci sellal ak maandu ak jub naka noona itam ku ñuy wax Mouhamadou Sall Mouhamadou Sall moo doonoon sëriñ bàmba dëkk ba ñuy wax bàmba tamu ne ci wetu Kaffrine sëriñ ba ko moomoon ñu di ko wax sëriñ Bamba Ahmadou Sall kooku moom la ñu tuddee sëriñ Touba Ahmadou Sall moomee moom la tuddee sëriñ Touba kooku sëriñ Morante Sali bi mu jàngee ci sëriñ Masamba Anta Ceebo ba noppi dafa dégg fóore jooju fekk sëriñ Masamba Anta gaañu mu dem fekki fóore jooju nga xam ne moo doonoon sëriñ Bamba dëkk ba ñuy wax Bamba ca wetu Kaffrine mu nekk fa mu dem fekki ko di jàng ci moom ba mu jàngee ci moom ba eggal lay la koy gunge ne ko nanga ma dimbali ba bis boo amee doom taaw ba na ko tudde rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye ka ca topp na nga ma dimbali tudde ma ko loolu moo waral bi nga xamee ne sëriñ Mor Anta Sali dem na samp kër taawlu mu tuddee doom ji ju jëkk ji Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy sëriñ Mor Jaara bi nga xamee ne sëriñ Touba dikk na it mu tuddi ko Ahmadou Sall moomee Ahmadou Sall moomee nga xam ne moo jàngaloon Serigne Mor Anta Sali bi nga xamee ne Serigne Mor Anta am na ah, euh, Cheikh Ahmadou Bamba tudde ko Ahmadou Sall moomee ba Ahmadou Sall moomee déggee ne sëriñ bi feeñ na dal nay dal di yëgal Serigne Mor Anta ne ko am nga doom joo xam ne dana ami mbir mu rëy am nga doom joo xam ne danga dana ami mbir mu rëy te booba da dafa dégg nag ne sëriñ bi am na ba mu tudde ko ko loola nag li ko waraloon moo di jikkoom ju rafet ji mu yoroon ak ormal ak fonkeel gi nga xam ne gi daana ko def ci koo xam ne kii moo ko ak mag ak ñeewant ak ñeewant ak yërmande ji nga xam ne daana ko def ci koo xam ne kii da koo féete ak ak raw ci saayir ak ndaw ci saayir li nga xam ne moo gën a gàtt daal Sëriñ Tuubaa ñi jamonoon teeg moo moom ñoom ñépp suñu maasee ak sëriñ mor anta sëli ci saa yir itam te yàlla dénk leen benn tomb baatin boo xam ne bii wala ak baax kenn ku ci nekk am na cër boo tudde boo joxoon sëriñ tuba du caage ne sax ñi nga xam ne ñoo nekk sénégal képp am na ci ñeneen ñu nga xam ne ñii nekkuñu sénégal mel nekke mohamad ibnu mohamad al karim al fadil al daymani ak ku ñuy wax abdallah tam glawi ak ku ñuy wax alhaaji ibrahim al baghdadi al mauritani ñooñu ñëpp ay maasi Serigne Mor Anta Sali la woon te dëkkuñu woon Sénégal te kenn ku ci nekk am na loo seeree loon xaadimu rasul xamoon nga ne bi nga déggee li li eh, bi nga déggee ne sëriñ Touba am na rekk te yàlla dénk la benn tomb aw yiw bu benn tomb ci ak baax dal ngay dal di xam ne koo kii feeñkat li nga xam ne lii mooy àddina yàlla ci loxoom la ko teg loolu nag li ko waral moo di Serigne Touba da daan ëmb ormal gum daan ormal mboolem ñi nga xam ne ñi dañoo jamononte woon ak moom ci yi tarixa yi ci taal jaar benn mbiram ba ci mujjug mbiram yépp amul benn nit boo xam ne bi daa nga nekk ci Serigne Touba te doo gis mukk nit ñi di jokkaloo di ñëw ci moom délégation di jokkaloo di jóge ci moom ci kilifay xaadir yi ak kili mu di leen jox ay addiya ak i may di leen ko jox ak kilifay tariqa chadaliya ak kilifay tariqa tijaniya kilifay tariqa chadaliya ci waa kër eh, Mohamed Fall wala ak waa kër Babawal Hamdi ñooñu ay mauritanien lañ di ñu bokkoon ci tariqa chadaliya loo ñooñu ku nekkoon ci kanam Serigne Touba yaa ngi daan gis kilifa yooyu daan yonne seeni ndaw ñuy ñëw di di leen yebal si ñuy siyaare si Serigne kilifa yi tijaan itam daana ñu jokkaloo ak moom ay ndaw di jóge Mauritanie ñii di jóge Sénégal di ñëw di siyaare Serigne Touba ñu di leen yebal seeni kilifa di leen yebal ñuy siyaare si Serigne Touba bu ñu ñëwee mu di leen teral teraanga ji nga xam ne moo ca war di leen wormaalit bu baax kilifa yi tijaan yooyu mel ne idéal yi nga xam ne ñoo nekkoon Mauritanie ndax wulu bodi moom mooy ki nga xam ne moo fekke woon Cheikh Ahmad Tijani bi nga xamee ne ñëw na Faas ñi nga xam ne ñi ñoo ko toppoon ak ay sëtam ak i taalibeem yépp yi nekkoon Mauritanie ku nekk daana xam ne ñi ngi jokkaloo ak Serigne Touba di ñëw ci moom di ko ziyaara si ñooñu ku am xam gis nga seeni taalif yi ñu taalif ci Serigne Touba di ko tagg seen diiwaani way yu ñu koy woy ku am benn xalaat ak ku gëstu gis nga ko ndax téere yi boo demee Mauritanie mu ngi fees dell ak tagg Serigne Touba ci kilifa yooyu noonu nga xam ne ni la ko tiyaan yi nga xam ne ñoo nekkoon nekkoon bitim réew sax ni ñu ko doon ziyaara naka noonu it yi newoon ci biir Sénégal noonu lañu ko doon ziyaar daanañ ñëw ci moom mu di leen teral ñu di ko ziyaare e ci indi kenn ku nga xam ne kii misaal la ci muy alxaaji Malick si mi nga xam ne mi moo yeesal tariqa tijaaniya fii ci Sénégal ndax alxaaji Malick si dafa am ak bokk gu dox digganteem ak xaadimu rasul ndax baayu alxaaji Malick jigéen ji ko jur mook sëriñ Mor Anta Sali ñoo bokk baay maam Balla mook maam Balla ñoo bokk benn baay jigéen ji jur baayu alxaaji Malick ak maam Balla Aysa ñoo bokk benn baay muy maam Maaram jokk bokk googu nekkoon seen diggante nag dañ ko daan jokkante bu baax mën naa leen leen ci tuddal sax addiye joo xam ne ji alaaji Malik moo ko faboon yëkkati ko muy ay téere ak addiye ju woom sàkk ay ndaw teg ko ci seen loxo ni leen dem leen ziyaare leen ma xaadimul rasul joxal ma ko addiye jooju addiye jooje yemul ci yónneeku addiye ji képp ak téere ya ak addiye ja képp dafa dal caa dal di boole ñaari bayit yoo xam ni nii la ko waxe dafa wax ni hadiyatun moom alhaj maligay wax hadiyatun موجبها اجتلاب محبة ya أيها الحباب أدام ربنا لنا حبل الوصال وكفنا شر الذي عادى وصال yow xaadimu rasul maa ngi lay yónnee addiye ji addiye ji nag lu tuuti la ci man li waral ma di la ko yónnee itam bëgg rek sa xol boobu lu toll lu toll ne tarafatal ay ni sax nekk ci nekk ci nekk ci ci ak mbëgg ma ak nga bëgg ma ak mbëggeel ci man ma ak bëggeel man ci man ci yow lu toll ni tarafatal ay ni rek bëgg nga ëmbal ma ko ci mbëggeel rek moo tax ma yónnee la addiye jooju maa ngi lay xamal ne it yow yaay soppe bi maa ngi ñaan ci yàlla itam mu saxal buumu jokk jokk guy dox suñ diggante maa ngi nu ayu képp koo xam ne kii noonu nanu wala mu dinu song xadimu rasul dal di jël addi yéje ba noppi dal di koy tontu moom itam ñaari bayit yi may bëgg a jàng dal di koy wax ne ko jazaakumu xayr ba tey itam làmmiñam ne ma ne ma jële naa ci aw nit ñu wër ñoo xam ne ñi wax nañu ma ne ma toog nañu fi kanam alxaaji Malick si ay nit ñëw fi moom nit ñooñee nag benn mu di ay xarit yu xamul dara wala muy ay noon yu am xel ñëw ci alxaaji Malick ne ko waaw loo xam ci mbirum xa Cheikh Amadou Bamba dégg nañ ñu ne moom de day wooteeg wilaayaay dégg nañ ñu ne itam dam wa nee na maaxuusu min bi bi wasitati rasulihi wirdam wa yàllaa ko ko jox jaarale ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam loola loo ca xam Cheikh Mouhamadul Bachir nee na bi nit ñi waxee loolu alxaaji Malick nee na ki ko ko nettali nee na alxaaji Malick daal daal ne koral won leen won gannaaw nit ki ko wax loolu daal ne ko ndax man danga maa bëgg a fenloo moo ndax danga maa bëgg a fenloo ndax yow dangaa bëgg xatal mayug yàlla mu yem ci kenn dangaa defe ne yàlla lim am kenn rek la ko may dangaa jàpp ne lim am Seex Tijaan rek la ko may wala lim may Seex Tijaan dafa amul leneen yow dangaa bëgg xatal mayu yàlla yàlla lu ne mën nag moom Cheikh Mouhamadul Bachir itam dellu na ma wax ne ma alxaaji Malick nee na su ma xamul woon ne Cheikh Ahmadou Bamba su ma amul benn tegtal ci ne Cheikh Ahmadou Bamba moo gën ñépp itam am na benn tegtal boo xam ne bi doy na sëkkub tegtal mën na maa indi ay pro yu bare wante benn pro bi rek doy na sëkk pro loolu mooy ban moo di alxaaji Mbakke so mi nga xam ne mii moo ma ëpp xam-xam fuuf gën maa jub fuuf gën maa maanu fuuf gëm gum gëm Serigne Touba laa xame ne ku mel ne kii bu nangoo ron ku ka muy nangoo tëdd ci ronam rek kooku amul benn moroom ci àddina ndax bu sa kenn ku mel ne morom moom moom amul ci àddina man defuma Mbàkke Buso morom kon nag ginnaaw defuma Mbàkke Buso morom kon ki nga xam ne kii attan naa sëgg ci ronam kooku amul kenn amul amul morom loolu itam Cheikh Mouhamadul Bachir wax na ma ko ne Cheikh ne alxaaji malik moo ko wax ci làmmiñam mu dégg loola nag li ko waral moo di alxaaji mbàkke buso dafa bokkoon ak alxaaji malik dara di jàng ci sëriñ ngiig moom ak jaaxa sise ak major sise ñoo bokkoon di jàng ci sëriñ ngiig ñoom ñett ñeent foofu la malik xam ci lolo loolu ba wone ne mbàkke buso ni ma xam-xam ak nim ma gën a jube ak nim ma gën a maandoo képp ku mu nangoo nekk ci sa ron rek kooku amuloo morom ndax ma ku mel ni Mbàkke rek xaw ma ko man sama sëriñ bi ma doon jàngal muy Cheikh Mouhamad Lamine Diop moo ma jëkk a jàngal wax na ma ci làmmiñam ne ma dégg naa ci sama nopp bii kudul ma ni dégg na ci noppam alaaj Malik wax ne kudul sëriñ Touba ci Sénégal gi rek ak tuubeen nga ku dul Serigne Touba ci senegal gi def nga jëf joo xam ne jii boo ko fàttalikoo danga nga xa da rus sa digganteeg sa borom ba mu des Cheikh Amadou Bamba. baat boobu sëriñ Mat Lamine Diop moo ma ko nettali ci làmmiñam ne ma dégg naa ko ci sama nopp Alxaaji Malick wax ko ku dul ma ni dégg na ko ci nopp Malick wax ko. loolu. mooy li doxoon diggante alxaaji malik ak sëriñ Touba naka noonu itam noonu ko alxaaji malik respecté woon ak ñi ma jëkk a wax noonu ñu ko fonke woon ak niñ ko respecté woon ba tey itam benn boroom xam-xam bu rëy bu ñu daan wax Abdoulaye Cissé dëkk Saalum mooy sëriñ jaamal sëriñ jaamal boobu dafa jàngee woon ci sëriñ Mor Anta Sali mook sëriñ tuuba ñoo bokkoon di jàng ci sëriñ Mor Anta Sali Serigne Jaamal boobu dafa fonkoon lool sëriñ Touba ndax li mu xam ci foofu la ko jëlee daana wax ne am na lool daal nanguwuma kenn di ko giñ mooy bu kenn giñ ne du ma siyaare ci Serigne Touba ndax ku ko giñ danga nga da nga ko rëccu bu kenn giñ ñëy du ma dem padaay padaay benn suuf la woon su nekk ci biir Saalum su neexoon a bay soo xam ne si ku fa masaan bay day nangu lool mu ne nag mësumaa gis mukk ku nemmiku ji padaay rëcc ko mësumaa gisit ku nemmiku ji Sëriñ Tuubaa rëcc ko daana waxit ne man dey waaru naa ci sénégalais ab sénégalais day gis day dégg gëm gis weddi ab Sénégal lu muy gëm lu muy dégge gëm ab Sénégal day toog fii ci Sénégal dégg ñu naan Cheikh Abdul Qadir Jilani ca Baghdad Cheikh Ahmad Tidiane ca Faas xamul loolu aw léeb la xamul ñoo ñu sax ay jullit lañu ñu doon wala déet ndax xamul ci ñoom dara dégg ko rek dal di koy gëm adopté lépp jàppe leen ay wàllu yu jàppe leen lépp gis Serigne Touba mu jëf ñu gis ñu weddi ko ñii daal duñu dara dégg ñii xamoo ñooñu ñu nekkoon lañu loo doon sax xamoo aw léeb lañu wu ñu léeb xamoo bu dul aw léeb itam loolee dëgg la woon ci ñoom wala jullit la ñuy woon wala ay naafeq la ñu woon xamoo ca dara nga daldi ne rek li ma dégg ci ñoom dëgg la daal koy gëm accepté ko gis Sëriñ Tuubaa mu def saayib def lu kenn mësu la def ci àdduna nga weddi ko loolu daal man jaaxal na ma ci wax bu ñu dooni gor daal kii leen woon ñu gis wala ñuy wut yàlla wala wu ñuy wut lu baax kii leen woon ñu gis kooku la ñuy ngëp ci moom bañ a dégg lee nga xam ne xamuñu aw léeb la xamuñu lan la sax te mën naa doon lu ne ci àddina nee na loolu la daan seereel sëriñ tuubaa da daan ñëw sax gannaaw mook sëriñ bi ñoo bokkoon di jàng ci Serigne Mor Anta ci ay kafam da daan ñëw ci Serigne bi ne ko eh yow sama sëriñ bi du sa moroom Serigne bi ne ko waaw lu tax mu ne ko sëñ Mor Anta Sali du sa moroom du sa morom moo la gën fuuf du sa morom yow ah yow sëriñ morante sali la gën su ko defee mu ne ko waaw lu tax nga ne moom a gën mu ne ko sëriñ morante sali am na la te yow mënoo am lu mel ne yow am na la yow te doo am lu mel ne yow mukk ci àddina loolu fàtt na la loolu sëriñ ab Abdoulaye Cissé bu jàmmal daana ko wax naka noonu it alxaaji Dramé ak alxaaji Mouhamed Camara alxaaji Mouhamed Camara mooy ki ñuy wax As Camara alxaaji Mouhamed la tudd alxaaji Mouhamed Camara ak alxaaji Dramé kenn ku ci nekk ak Seydina Issa Laay ak Cheikh si bu Mouhamed Kunta bu Kunta bu Mouhamed la tudd ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk amoon nga ak sëriñ ku ci nekk foo tegoon sëriñ Touba respecté woon nga ko bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñi jamonoonte woon na ñoom moom ci jamono joojee Sëriñ Touba nag relation am googu mu Gabon ah, bi nga bi ñu dee fii 1898 mu nekk njole ba 1900 ba nga xam ne mi ngi bëgg a faatu dafa wax Tranché Mori ne ko bis bu ma faatoo na ngeen yónnee ci ku baax kooku nga xam ne maa ngi koy dégg ci làmbare ne ne leen na ma dimbali ngir yàlla jébbal naa ko sama bopp àdduna ak àllaaxira na jóge foofee ñëw dimbali ma jullee ma nee na bi nga xamee ne na Saranke Mori daal di yónnee ndaw mu ñëw Lambaréné diggante Lambaréné ak Njole gi nga xam ne gi moom la Samori nekkoon nag diggante bi war naa toll ci cinquante quelques kilomètres bi nga xamee ne ndaw li ñëw na yëgal ko sëriñ bi ne ko kat Samori jëbbal na la boppam àdduna ak àllaaxira nee na nag dafa bëggoon nga dimbale ko ba bu faatoo nga ñëw dimbale ko jullee ko taxawu ko ndax yow rek yaa ko doy sëriñ bi dal di ree ne ko nangul nañ ko ak njëbbalam wante dafa xamul ne la ko yóbbu foofee ba munta ñëw fii jëbbal ma boppam mooy li ma jàpp ma itam li ma tëye fii ba mënumaa dem foofee di ko jullee waaye du gis lu mu ragal ci bàmmeelam maa koy jiitu ca bàmmeel ba bi nga xamee ne itam moom Renago nee na bi nga xamee ne faatu na Serigne Touba dafa dal di génn ci dëkk bi mu nekk ndaw ñëwul kër yëgal ko ko daal dal di génn ci néeg bi mu nekk dal di taxaw jublu penku bi mu jubloo penku dal di julli jullee Samori ndeke booba Samori lay jullee ci lambarne gi mu nekk Samori nekk ca Njole. loolu nag mi ngi ko defee ngir sëriñ tubaa mbiram boo ko seetee li la ciy gën a waar moo di lu gaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek gaar na xaadimul rasul lépp lu gaar rasulullahi sallallahu alayhi rek ma ne la gaar na loolu moom mi ngi ko defee ci kaw bi nga xamee ne najashi imbratorul habasha empereur bu Éthiopie Habasha mooy Éthiopie léegi empereur bu Éthiopie Éthiopie mooy asluk nit ñu ñuul ñépp Éthiopie lañ jóge fa lañ cosaanoo ñoo jëkk a ñuul ci doomu aadama yi muy Habasha bi nga xamee ne rasulullah sallallahu alayhi wa nekk na ci makkatal mukarrama ba yàlla sant ko mu woote ba mu formé arme bi nga xam ne bi ba mu formé biasaat yooyu nga xam ne da leen di yónnee ñuy dem ci buur yi yónnee bi sa bi nga xam ne moo ñëw ci buuru Rome Héraclius yónnee bu euh, délégation bi nga xam ne ñoom la yónnee ci buuru Masar yónnee délégation bi nga xam ne ñoo dem ci Kisra muy Iran yónnee délégation bi nga xam ne ci euh, Malik Habasha an Najashi buuru empereur Éthiopie moom ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk daan nangoo joxe galak waaye kenn tuubu ci kudul malikul xabasa bu gënte njole ak lambarne waaye comme rasulullah sallallahu alayhi wasallam defoon na loole loole moom balaa faw mu def ko ci ak dund xam ngeen ne sàmmoori kilifa diini la woon kilifa àdduna la woon wax naa leen ba benn télégramme moo fi jóge moo jóge euh, Brazzaville wane ne Serigne Touba nañu ko transféré jële ko Mayumba yóbbu ko Madagascar loolu moom la waa Gabon jàppoon ci tubaab yi dañu ne bu nu ko jéemee obligé yóbbu ko Madagascar attan naa bañ kon na ngeen ko bàyyi yóbbu ko Sénégal bàyyi ko fa as ndiir mu nopp lu tuuti ni jéem a seet ba xam dañ koy yóbbu Mauritanie wala Madagascar loolu moo taxoon ñu delloosi ko waaye delloosi bi du woon indi pour mu toog ba mu ñëwee itam ay quelques mois rek la am tubaab bi jël jël yoon nag pour war koo yóbbu ci amuñu wenn lay wuñ koy wuñ koy layale moo waraloon ñu dóoraloon ko dóor woowee dal di wane ne mi ngi jënd arme pour bëggoon bu ñu fa fekkee arme mën na daal defu lay ne ko yow bëggoon nañ laa bàyyi ci réew mi sax wante nag ah, yaa ngi bëgg a xeex dal ci suñu kaw eh, eh, loolu tax lu mu bëgg laa yóbbu te lay loolu day dal doon aw lay loolu moo waraloon ñu dóoral ko dóor woowee bañ demee itam fekkuñu fa dara bañ fa leen fekkul dara itam taxul seen xel dal ñu dal di woolu Cheikh Sidiya ne ko léegi danoo bëggoon nga waxtaanal noo sëriñ bi ngir mu nangoo génn Sénégal ndax bëggunu suñ xel dalul ci bàyyi ko senegal ah, te itam bëggunu ko ne ko dana lay dana lay génne réew mi muy gàntu te bu gàntoo duñ mën lu dul def li nga xam ne lii moom la wax bi ñu waxtaanee Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya dal di bind Sëriñ Touba lettre yëgal ko loolee booba mi ci ndar gii ba mu ko yëgalee loolee Serigne Touba dal di koy tontu ne ko gis naa sa ndaw dégg naa li nga ma waxi waaye man li ma lay xamal moo di ñooñu lu ñu bëgg ci man danaa ko nangu ndax bëgguñu ci man dara lu ñu def ci man rek lu yàlla dogaloon ci man la xam naa ne nag li ma am li muy rëy rëy ak li muy bari bari ak li muy daj daj àddina bi yépp bu ma sañoon sama waa réew laa ko gën a yéene te fu ma dem faw ma am lu ma fa bàyyi ba tax na lu mu doon sama réew laa ko gën a yéene tax na bu ñu ma fi mënoon a bàyyi itam man moo may gënal wante nag itam bu ñu jubluwul lu dul jéem a génne réew mi itam ak foofu fu mu mën a doon ci àddina d'accord naa ca ndax loola mooy la yàlla dogal te it moo may gënal sax ndax man awma ci àdduna lenn lu ma bëgg lu dul liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak jaamu yàlla te loolu mënuma koo defee fii ma nekk wasalaam ba mu jotee lettre boobu nag daal di koy traduire lettre boobu Serigne Touba mi ngi ko bind date ko guddik ajjuma la ko bind di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru diggi muy euh, diggiwu gàmmo ci atum 1321 tombeek 1903 ci la bind lettre boobu yónnee ko xaadima yónnee ko Cheikh Sidiya bi Cheikh Sidiya jotee lettre boobu mu dal di koy traduire traduire luñ traduire ko jox ko tubaab yi bi ko tubaab yi gisee daal ne ah kii kat buñ ko bëggee yóbbu Mauritanie dana nangu te itam yóbbu ko Mauritanie lu am solo la ndax buñ ko yóbbee Mauritanie dana ko néewal doole ndax nit ku ñuul dafa complexé bu nekkee foofee ak Cheikh Sidi ak Cheikh Salibu ku nar a ñëw jébbalu ci moom da ko fay bàyyi dem jébbalu ca ñooñee waxuma la loolu sax waaye taalibi mi amoon sax dana ko ñàkk ñoom ñëpp danañu ndax nit ku ñuul fu mu dend ak nit ku ku weex ku ñuul ki moom defe na ne ku weex ki rek a war a am lu baax ma ne loolu war naa tax nu doon ay gor baat boobu ñunu nit ñu ñuul ñi nit ñu xonq ñi seereel jàpp ne nun nit lañu ñoo xam ne ñi warunoo am dara ba seere soo ñunu seereel war naa tax nu gore bu nu amee ku toll ni Sëriñ Tuubaa nga xam ne ñu weex ñi amuñu ko waruñu ko waruñoo dem di jëggaani fee am am du Xaadir Jaylaani wala muy jëggaani fee am Cheikh Ahmad Tidiane sunu dee gor danañ yem ci sëriñ Touba mii ndax ñoo ñooñee lu ñu mën a am Serigne Touba am na lu ko ëpp fuuf te bokk ak ñun di sunu deret bi nga xamee ni nag tubaab yi bi nga xamee ne tubaab yi gis nañu loolu euh, bi nga xamee ne tubaab yi gis nañu loolu lettre boobu nga xam ne moom la Cheikh Sidia moom la Serigne Touba bind Cheikh Sidia euh, ma ne bi nga xamee ne letre boobu Xaadimu Rasul bind jox ko euh, Cheikh Sidia Baba bi nga xamee ne firi lañ ko tubaab yi tubaab yi daal di xam ne nag bu ñu ko bëggee interdit dana nangu ñu daal di signé décret bi le 13 juillet 1903 dëppoo bisu gaaw di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmm atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ci gàddaayu rasulullahi sallallahu alayhi ci la ñu signé boobu daldi di interdit Serigne mu jóge Sénégal jëm Mauritanie bi mu eggee Mauritanie xasida gi moom la ko Cheikh Sidiya jëkka teeroo lan la wax xaadimu rasul ci dëkk bu ñuy wax biirul maymun daf ko wax ne ko يا a'taaka taqdiman wa وولاك في الجهر tajdid دين الله مولاك فجئت توقد ذا نوم وترفع ذا خفض وتتحف ذا حاجم بجدواك لا زلت مرشد ذي غي مكمل ذي رشد مؤمن ذي خوف ببشراك ومذكأ لليتامى والعفاة معا ومخرجا من قلوب الناس إشراكا إن الذي حزت لا يخفى على أحد إلا على أحد ما حاز إدراكا أنت المربي بما رب الأمين به حرفا بحرف فما في الجيل شرواك يا شيخ بورك فيما قد خصصت به وفي جميع الذي يوليك مولاك يو خادم الرسول يو كب la جيتل يا جيت نيب يو yow منغل yàlla méngale nëbbuwu ko du rek da koo def mu ne fang ñépp xam ko yow dong la yàlla méngale nga war a yeesal diine yàlla ñëw gi nga ñëw fii itam mu mel ni tubaab yi dañ la fee indi ngir bugal la wala fitnaal la ñëwoo fi ngir loolu de lan nga fi ñëwee danga fee ñëw ngir yee doon nelaw ngir fekk ku suufe woon nga yëkkati ko ba mu tiim ñépp fekk koo xam ne kii aajoom da koo jaaxaloon lool nga faj aajoom loolu nga fi wut si ñëw gi nga fi ñëw danga da fee ñëw ngir gindi koo xam ne kii dafa gëlëmoon ngir fekkit koo xam ne kii ak jubam dafa tàmbali woon te matut nga mottali ko fekkit koo xam ne kii dafay ragaloon nga ñemeloo ko loolu nga fi wut si kat da nga fee ñëw ngir nekk di wéerukaayu jirim ñi ak ñu ñakk ñi danga nga ñëwit ngir dindi ci xoli doomu aadama yi bokkaale yàlla akuk lëndëm lii nga fi wut waaye ñëwoo fi ngir ñu interdit la fi li gën a wér daal yow xaadimu rasul li nga làq ku yàlla may benn tomb baax nëbbu nëbbu nëbbu ko umpalewu ko ki mu ump daal mooy ku xamul dara ci yàlla ku xamul ci dara ci yàlla mooy ki nga xam ne ki xamul ne yàggan ñëpp yow dong yaay kii yare ni rasulullahi sallallahu alayhi wa daan yare xarfan bi xarfin li gën a gàtt daal fama fil jiili sharwaaka maas bi daal sa moroom amu ci yow xaadimu rasul li la yàlla may yàlla na la ko waccinu yàlla na yàlla yàlla defal barke lim nu waroon a séddale lépp bañ ñu ko séddale xanaa daal di koy fab jox la ko yàlla na la ci yàlla defal barke te saxal ko ci yow ci kaw loolu itam gannaaw bu nga xamee ne teeroo na ko xasida googu itam am na yeneen xasida yu mu defaat ci se xaadimu rasul nee na الشيخ أحمد نعمة أولاها هذه الخلائق كلها مولاها الشيخ أحمد بمبا أقوى له كو خمنا يلا كو خوال مبولد بندفينك كلها su ngeen ko indee fii ci Mauritanie waa Mauritanie jëriñoo ko su ngeen ko bàyyi ci Sénégal it waa jëriñ waa Sénégal jëriñoo ko waaye fu mu jëm moom xéewal la gu yàlla jëriñe bindee fii rek فالحمد لله الذي نعماؤه لا يستطيع عباده إحصاها تلقاه إن رفعت بمجد راية بيمينه متهللا يلقاها وإذا رأى يوما مكارم أعرضت فمصمم متيمم كبراها ما ضر أرضا أسعدت بجواره أن لا يكون ربيعها أبقاها تنسى العصاة ببركم أوطانها حتى ترى مغناكم مغناها يلقى جموعهم ببشر صادق فكأنها تعطيه ما أعطاها شهد الطوائف أجمعون بكونه برا كريما قانتا أواها ممن يرى نفع الأنام فريضة كرين الله يرضى إذا جرت الأمور مسلما علما بأن إلهه أجراها dafa wax ne nun war na noo sant yàlla ci xéewalam gii nga xam ne benn jaam mënu koo lim mënu koo dayal mënu koo takk googu xéewal mooy gan mooy xaadimu rasul la xaadimu rasul moomu drapo teranga fu mu yëkkati ko rek loxom ba jóg ngir ngëb yi drapeau waxtu woo xamee ne teranga ñëw na mu dal di dëddu rek ba max ko ñi nga xam ne ñi ñooy bindee fi yàlla yi waxtu woo xamee ne musiba ñëw na mu dal di jóg rek yanu musiba moomee daayaarlu ko wala fi fi yàlla yi kon nag képp suuf soo xam ne si yàlla xéewale Sëriñ Tuubaa tànkam teg fa suuf la soo xam ne si du bekkoor mukk ci àddina sëriñ la boo xam ne bi di ko ñaan si bu waxtu wuy dindi li mu lay jox day mel ne moom moom yi da koy jox li li mu lay jox dala koy won dalay jox anam goo xam ne gi dala koy joxe ci anam goo xam ne gi ak mbégte moom ak belli xam wala ndax nit ñi ñoom ci ay doom ak i alal képp la ñuy yittewoo te yow yittewoo doom yittewoo alal lu dul ndigalal yàlla yow yaa ngi gindi nit ñi jëme leen ci aw yiw te it gindi woo nit ñi jëme leen ci wenn yoon woo xam ne wu jubadi la yaa ngi wammatu wammat nit ñi jëme leen ci sunnat rasulullahi sallallahu alayhi wa te jëme woon ci sunna uh, uh, bidaa dellu na ko te dane ko أيامكم عندنا صف بلا كدر تكاد تحسب لم تحسب من العمر أشهى الوصال إلى الأحباب ما ظفرت به يداهم على يأس من الظفر زرتم فما كان إلا قول قائلهم من غير شك ولا ريب ولا نظر كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري نينك سفن ينغ أمتنون يو خادم الرسول فن يسلل فن لا يو خامن يدفع ملني يغنى لول واي دفع ملني بكل شيء دوندو سخ نير نيخي دو منيخ نيو نغ تنون ويسي تسنو سنو مريو وانتن بيغا نيوه ni nu daan dégg ci nett nettali nit ñi li mu nu daan wax ci noonu ci say xabaar bi nga xamee ne gis nan la li sunu bët gis ci yow sunu nopp mosu koo dégg mukk li ni sunu nopp daan dégg ci lu baax ci yow buur sunuy nopp dell fees ko dell itam lépp teewul bi nu la gisee jàkkaarloog yow li nga nu won nu gis ko moo ëpp fuuf la nga xam ne moom lañ daan dégg ci yow ci lu baax naka noona itam euh, Cheikh Sidiya tagg na sëriñ Touba loo xam ne lekk na junniy way ak juróom-benn téeméer ab diiwaan la def sëriñ Touba te ku ne xam na tolloo ay Cheikh Sidiya junniy way ak juróom-benn téeméer tagg na ko xaadimu rasul kon nag bu nu fi bëggee toog di tudd way yu nga xam ne moom la Cheikh Sidiya tagg xaadimu rasul danañu sonn lool wante nag mën naa leen ci indi loolu rek e ngir ngeen mën a xam kooku fan la tegoon xadim rasul te jàll ci cheikh saadu abi ji cheikh saadi bu ku ne xam na ne setu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn nattablewul xam-xamamit kenn nattablewul ak wilaayaamit lii may bëgg a nettali nag mooy li doxoon digganteem ak xaadimu rasul bi sëriñ Touba ñibbisee ci géej gi bataaxil bi mooy moom la jëkk jot bataaxil bu jóge ci moom mu di ko ndokkeel bataaxil boobee mu ko bind lii la ko ca wax gannaaw bu ma sante yàlla mi nga xam ne mii dimbale diine ci ñibbisi goo ñibbisi gannaaw buma sante yalla mi nga xam ne na diine ci ñibbisi goo ñibbisi gannaaw buma mu tumurankeelee diine ci bi nga xamee ne tubaab yi jàpp nañ gannaaw bu nga xamee ne yàlla takkaayal na takkaayale na na loosu jamono ci sa taar fa wurus bi nga doon takkale na ko jamono mana yaay taarub jamono maa ngi lay xamal ne bataaxit bi mi ngi jóge ci sa soppee bi nga xam ne bi bëggul ku yow donte yaram yi soree na it wante du doy lu mukk ci jàkkaarloo ak yow ak gise ak yow muy ki nga xam ne kii moo signé aw turam ci suufas lettre bii lettre bi mi ngi jëm ci sëriñ sang bu tedd bi nga xam ne bi kilifa la ki nga xam ne kii nosi bindeef yépp ci loxoom la ko yàlla teg ki nga xam ne kii ci muñ ci lay jotee maqaamam nit ñu baax ñépp ba nga xamee ne jot na maqaamam nit ñu baax ñey ci muñ googee ca la yéege ba egg ca pay ba nga xam ne bi doomu aadama musul la egg ca boobu pay maa ngi ñaan yàlla mu musal nu ci waru kan laa jublu ci boroom boroom lettre boobu may may dàkkental te tuddaguma aw turam mooy borom may yu rëy ki nga xam ni aw turam tasaaroo na ci sow ak jant kooka mooy kan mooy Ahmadu Bamba alwaliyul kaamilu saadiq saadiqu fiihi qawlul qaa'il moom mi nga xam ne waxi waxi aji wax ja moom rek a dëggu ci moom wax ji arab bi waxoon ci moom dong la yey arab bi loolu lan la waxoon مي حلف الزمان لياتين بمثله حنكت يمينك يا زمان فكفري ادنا جينغن من اندي كومل سيرن توبا واي ادنا نلا وور ني فن كفاره سانغين نا كومل خادم الرسول يالا امتوك لي وارال مدي لا بيند ليتر بي نك ماغي لاي خمال مستبشرون مهنيون لهذا الرجوع noo ngi lay ndokkeel di la xamal ne bét nanu bu baax ci ñibbisi gi nga ñibbisi gannaaw boo xamee ne daanaka rek euh, génnoon nanu àdduna ngir génnoon nanu àdduna te mënuñu woon nelaw ngir jàpp galatuwaa yu jàpp génne la Sénégal ba nga xamee ne dégg nañ nu ne ñibbisi nga ci lañu defe xasida ji nga xam ne gi moom lay bëgg a jàng بل لوقت معادنه أجلته منه النصارى فأصبح في تلك البحور نظارا ومن صدف البحر المحيط بدا فمن تلألؤه فيه العيون حيارا فعجبي لكيمي امتحان غدا بها نضار الورى ياقوتة لا تبارى وبدر منير غاب في الغرب ثم لاح من الشرق شمسا رفعة وانتشارا ويا عجبا باب المتاب مفتح لكل مريد رام منه جوارا هنيئا لذا الدين الغريب الذي غدا يتيه سورا منكم وافتخارا مني قصيدتي من كو جمل شي كيغا خامني كي مبلو مورس لاون بيغا خاميني ديماغول شي جيج واي بيكو يوبي شي بدلو سيكو ورس لا وني تك بانيو sëriñ bii nga xam ne bii nattu bi ko yàlla tegoon am nattu la boo xam ne bii dafa meloon ne wurus woo xam ne tëggaguñu ko ñu tëgg ko rek sëriñ bii nga xam ne bi bi mu demagul ci géej gi aw weer la woon bi mu ñëwee ci jóge ci géej gi ab jant la boo xam ne bii tiim nañu nun ñëpp nun ñëpp noo ngi mel ne ay sondeel yuy takk sëriñ Touba mel ne ab jant ni ab jant tiime ay sondeel ni la sëriñ Touba tiime ni ab jant gën a leere sëriñ ni gën a leere ab sondeel itam ne la nu sëriñ Tuubaa ëppe ak leer yéem naa buntu tuub ubbiku na ci bépp murit boo xam ne daa bëgg a dëkkaale ak yàlla maa ngi ndokkeel diine diine ji nga xam ne tumuranke woon na léegi diine ngi sigare mu ngi jaayu mu ngi tiitaru di wane ne ki nga xam ne kii moo may taxawal dellu si na ki ma doon taxawal dellu si saadibu ak xaadimu rasul nu jàll ci ki ñuy ki nga xam ni moo ëppoon xam-xam ci biir Mauritanie ñu di ko wax Hamidine wala Mouhamed Baba waaye ñépp xam-xam ma fekk ko mu xam loo xam ne kenn xamu ko mu bañ a mu mu mu leeralal ma loo xam ne li ñu bari ci xam boroom xam-xam yi danañu juum ca foofa wilaayaam nag wilaayaam nag am na ay tegtal yu wér yoo xam ne yi ak ay tegtal yu wér yoo xam ne yi ak te ay tegginam yu bari itam ay tegginam yu bari itam li tax ma wax ne moo ko ëpp ëppale ci àddina yi mooy jamono bii nu toll ay teggin def cee bariwul ay teggin def ci bariwul ba tey itam loolu mooy li nga xam ne lii mooy li dox diggante Serigne Touba ak ku ñuy wax Babawal Hamdi dégg ngeen loolu nga xam ne moom la Babawal Hamdi seereel Xaadimu Rasuul dégg ngeen loolu nga xam ne moom la Babawal Hamdi seereel Xaadimu Rasuul naka noona itam nu jàll ci ku ñuy wax Cheikh Mohammed walu Boddi wala boddi mooy al aarifu sunniyul mardiyu moo may Cheikh Abdoulaye Niass bàyyub Ibrahima Niass wérg boroom xam-xam bu rëy la wala boddi moomu lan la wax ci Serigne Touba mu ne inna wilayata wa tafawuqa Cheikh Ahmadou Bamba ala mashayixi asrihi xafaha bishuhur xafahuma bishuhur gën gu Serigne Touba gën ku mu jamonoon teel ak wilaaya gu mu ëpp ku mu jamonoonteel te muy am wilaaya loolu daf ko indil ay mandarga yu fees yoo xam ne kenn mënu ko weddi loolu la wallu Muhammadu Boddi kilifa tijaan gu mag googu loolu la seereel xaadimu rasul naka noonu itam jenn doomi baayam ji ñuy wax Muxtaarul Alawi bokk ci Idawali nee na inna wilaayata Cheikh Ahmadou Bamba شهدت عليها قرائن أحواله حتى صارت بمنزلة القبر يقول ولا سرين توبا دفكو سكال أي سير دفكو جيس نيب خمكو مولير نان دولوني دم عليك فكرة نكا نونا يتم كوني وخ محمد فال والبابا العلوي التجاني مو مومو موك سرين توبه ñoo bokk menn at mu ñu génnee àddina ci saay daana wax ne daana daana toog bu masaan toog ñuy tudd kenn ku baax ak ku am wilaaya mooy ah man de mënuma waat wilaaya kenn ku dul xaadimu amul kenn ku ma mën a waatal wilaaya ku dul xaadimu rasul nee mënuma mënumaa waat wilaaya kenn même Cheikh Tidiane mi ma yaakaar jël wér tamit mënumaa waatuk wilaayam kenn képp laa mën a waatuk wilaayam mooy xaadimu rasul loolu ku ñuy wax Mouhamed Fall wala Babal alawil murid Tijani moo ko wax ab Mauritanien la dal di wax ne la tax nag ma mën a waat loolu moo di kilifa gu nekk Mauritanie ngeen di ko jiiñu wilaaya kooke wilaaya xaadimu rasul rek la mën a waat loolu moom laa def ci prôné kooku mën na maa waatu wilaaya ma ne jàppante relation googu daan dox diggante Serigne Touba ak ñi mu jamonoonteeloon yëmul rek ñi mu jamonoonteeloon ci senegal yëmul itam ñi mu jamonoonteeloon ci biir Afrique tuddal naa leen ñi mu jamonoonteeloon ci senegal tuddal naa leen it ñi mu jamonoonteeloon ci biir Afrique ñu nekk ci fu mel ni Mauritania ak fu mel ne Guinée muy Guinée dafa yemul foofu rek dafa jàll ba asi sax amoon na ca ay nit yu mu jamo ñu mu amoon relation bu dox seen diggante ku ne xam na ne ku xam géographie danga xam ne euh, Lubnaan muy Liban ci assi la bokk dafa am ba loolu moo tax Yusuf na Ismaïl an-Nabahani moomu am relation ak Serigne Touba relation googee nag am digganteem ak Serigne Touba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ka ko dox mooy ka dox relation ga ba mu am la mu ko doxee moo di Yusuf na Ismaïl an-Nabahani ku ne xam na demoon naa tagg rasulullah sallallahu alayhi bi nga xam ne bii jàpp na ni amul kenn ku nga xam ne kii mel na ni moom ci tagg rasulullah daana ko tagg ba bu jàkkaarloog moom daana ko tagg ba nga xam ni bi fu ko neexee rek mën a jàkkaarloo ak rasulullah ba mujj mu jàkkarlook moom ne ko waaw xanaa li ma la wax di benn nit musula ko wax mu ne ko ah am na ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Bam dëkk Touba kooka la ma wax asaka ji sax waxuloo ma loolu mooy li nga xam ne bi ne laa leen relation ga loolu rasulullah sallallahu a ko dox ndax moo ko xamal kooku ba mu ko ko xamalee yàlla dogal ne ko Cheikh Ahmadou Bamba ca Touba yàlla dogal Touba am na bu nekk ci biir Guinée am benn euh, benn saraxule bu fa nekk wala xaasunxe bu ñuy wax Mamadou Fodé moom bu ñuy wax euh, euh, Karamoxo Banfo Karamoxo Banfo boobu fóore woon bu rëy bu am xam-xam jóge woon fi nag di ziyaara ji xaramayni sharifayn yàlla atte mu wëndeelu ba egg Beyrouth ne dégg fa Yusuf ne Ismaïl Nabani mu ne dina ko ziyaare moom Karamoxo Banfo mu ngi dëkk ci Touba ga ca Guinée ba mu demee ba nuyoog Yusuf ne Ismaïl Nabani mu laaj ko mu ne ko maa nga dëkk tuubaa ca Guinée mu ne ko na nga tudd mu ne ko raa ma ko banku mu daal di jàpp ne mooy ki ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tegtaloon ndax tur yi xaw naa niroo tuubaa gi mu ko waxit te ne ko ma nga ca Afrique niroo na moom it waaye bi mu ko gëstoo tuuti daal di xam ne du ko ko rasulullahi sallallahu waxoon mu ne ko waaw tuubaa ndax genn la mu ne ko ah déedéet am na geneen mu ne ko googu fan la nekk mu ne ko ma nga ca senegal mu ne ku ko sos mu ne ku ñuy wax Ahmadou Bamba mu ne ko waaw kay waaw kooku fu mu ne mu ne ko kooku kat tubaab yi dañ koo jàppoon sànki ko mu ne ko ah dañu ne dañ koy sànki waaye duñu ko sànk dana dellu bu dellu see nag di dindi téere bu mu taalif tudde ko saadatu saadatu daaray ni téere boobee ay salawaat yu nga xam ne xutbu yi def nañu ko ci rasulullah sallallahu wasallam moom la ca dajale téere boobee amee naa ko ma nga ci samay téere ak téere bu ñuy wax anwaarul muhammadiya anwaarul muhammadiya siiratu rasulullah sallallahu wasallam la moom la alxaaji malik way muy miimiya ñaari téere yooyu la dindi jox karama ko ne ko sëriñ tuuba tubaab yi dañu koy jàpp yóbbu ko waaye dana ñibbisi soo delloo ba dégg ñu ne ñibbisi na daldi di waaxu ba egg ca moom joxal ma ko addiya jii ne ko maa ngi satanteeg moom wala rek dénk naa ko sama bopp ak naa àllaaxira na seen xel delluwaat na ci kan mooy Yusuf ibn Ismaïl an-Nabahani xalaataat leen itam kan mooy Yusuf ibn Ismaïl an-Nabahani mii dénk sëriñ Serigne Touba boppam loolu moo waral ba sëriñ Touba yebale woo Cheikh Sidi Mahmoud wala afalwaat ak Cheikh Abdul Wadud ne leen kaay leen demal ma makkatal mukarrama ziyaareel ma ndax maak yéen noo waroon a ànd dem makka ziyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam man dafa am lu ma jaayante woon ma leen di waaj ngir war a ànd ak yéen dem ziyaare ji rasulallahi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu ma fàtte woon ndax keroog ma tubaab jàppee dama jaayante woon ak yàlla ne ko fas naa yéene du ñu xam lu ma bëgg mukk te dañ ma indi njaareem tëj ma fi kaso te bu ma fekkente ne maa ngi bëgg a dem Makka fokk ma tàggu leen te bu ma leen tàggoo ñu xam lu ma bëgg loolu moo tax ma bëgg ngeen dem siyaara ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bu ngeen fa jógee ngeen jaar ci Yusuf ibn Ismail an-Nabahani ne ko jot naa ziyaaraam boobe dégg naa it li nga xam ne moom la wax nangul naa ko ndax bi Serigne Touba ñëwee Mauritanie bañ jëlee ko fa yóbbu ko jolo mu toog fa bañ jëlee ko fa indi ko njaareem ba ñu toogee ba mu yàgg karama ko banko moom mu dégg ñu ne Serigne Touba ñibbisi na muy dox ba egsi njaaram fekk Serigne Touba dal di koy jox ñaari téere yooyu ne ko Yuusuf ne Ismaïla moo tax nag Serigne Touba yóbbaale yóbbante aale ñaari ñooñu ne su ngeen jaaree Beyrut na ngeen wax Yuusuf ne Ismaïla loolu ba ñu fa jaaree wax ko ne ko seriñ bi nuyu na la nee na ndaw la nga yónni woon jot na ko nee na nangul na la sa la nga ko wax la nga waxoon jël nangul na la addiyee ja it euh, jot na ko it mu ngi la cay gërëm ba nga xamee ne loola am na wax na ne ba nga xamee ne loolu am na Euh, def na genn xasida goo xam ne gi sama càggante rek ak sama euh, ñàkk kii moo tax mukkaluma xasida ga euh, xasida ga si ma doon jànge ndax ñooñu ñu ñu ñu sëriñ bi yebaloon ñu dem di ziyaare ji rasulullah ñooñu yenn gàdd ci laa doon jànge bi ma nekkee Mauritanie loolu moo tax xasida ga amoon ci ñoom sama ñàkk fayda ak sama manki moo tax xasida ga jotuma ko ba mokkal ko wante man naa leen ci taral wenn bayit wu ma mokkaloon woo xam bi bayit wa daanaka sax ëmb na lépp lan la ci wax daf ne man faatahu ahmadul muxtaaru min mudarin wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuun képp koo xam ne kii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faat na la xaadimu rasul faat la ku perte nga koo xam ne kii amuloo dara ku sooy nga ku amul dara li gën a gàtt sëriñ Touba amoon na relation gu sell ak diggante mboolem ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teeloon soit ñum di kilifa yi diine wala ñuy kilifa yi politique limal naa leen lu bari ci ay kilifa yi diine ci ay kilifa yi diine yoo xam ne yii yu jamono yu maase ak Serigne Mor Anta Sali ci saayir lañ ak yoo xam ne yi dafa maase ak moom ak yoo xam ni dañoo jamononteeg moom ba noppi dëkk ci réew mi ak ñu dëkkul ci réew mi ñan ñooñ ñëpp kenn ku ci nekk defe naa ne mosal naa leen ci li nga xam ne lii moo dox digganteem ak Serigne Touba ak fa mu tegoon léegi nag dama leen a xamal ne ñi mu jamononteeloon ñëpp relation gi doxoon ci seen diggante ak respect bi amoon digganteem ak kilifay diini yooyu dafa yemul képp ci kilifay diini yooyu dafa jàlloon ci kilifa kilifay politique yi nga xam ne ñoo fi nekkoon. ndax ñoom ñépp daanañ ko wormaal daanañ ko respecté bu baax ndax Sëriñ Tuuba daf daan ëmbal aw yiw ñépp da daan bëgg ku nekk itam ngir yàlla mi ko bind kenn ku ci nekk ak yàlla ma ko bind lay sàmm ci moom doonte bëggante gi dana ëppaate bëgg gi muy bëgg nit ñi itam dana dana rawaate itam loola moom kenn ku ci nekk la muy bëgg ci yow lay la muy jëkk a bëgg ci yow mooy respecté ko ci yow moo di bind ga la yàlla bind loolu nag li ko waral mooy aji bëgg te bëgg gay dëgg ci moom day sàmmoonteeg lépp loo xam ne lii lu taq ci lam bëgg la lu taq ca lam bëgg rek boo nee nit dama koo bëgg walla nangam ji dama koo bëgg te lëf bokk ci loolee te nga nga sàkk ci ab séparation rek sa bëgg def na loolu moo tax rasul Seexal Xadim ab jullit ak jéefar rek ñépp daleen leen bëgg ngir bind gi nga xam ne yàlla leen yàlla da leen a bind da bëggeel ga mën naa rawaate mën naa ëppaate ndax jullit bi nga xam ne bi moom daa nangu li ko yàlla digal moom moo koy gënal nag mbindeef mi nga xam ne mi li ko yàlla digal nanguwu ko waaye nag bëggeel gu jëkk ga nga xam ne gi da cay sàmm bind ga ko yàlla bind loole ma nga ci xaadimu rasul tegtal gi ma am ci ne mboolem ñu jamononte woon ak moom ormaaloon nañ ko fonk ko ngir raflet rafetal gu muy rafetal rafetu jëflante gu mu jëflante ak ñoom loolam la cay misaal mooy digganteem ak Lat Joor Lat mi nga xam ne moo doonoon buuru Kajoor umpu leen ne Lat bi nga xamee ne dàq nañu Majoojo Dameel Majoojo folli nañu ko te mu dellu si ci am réew ci ci conseil législatif bi nekkoon Kajoor ba mu dellusee ba ñu fol ko falaat ko mu nekk buur dafa daldi forcé sëriñ Mor Anta Sali indi ko ci wetam ci pataar ngir moo di ko dimbale ci mbiri diine féete woo ko itam mbiri atte ak di ko dogal di ak di wéyal li nga xam ne moom la atte ndax mbooloo mi mi séqoon Lat Joor amu ci kenn koo xam ne kii am na confiance ci kaw ci yow ni mu amee woon confiance ci Serigne Mor Anta waa waajuram wa nag muy Serigne Mor Anta ba mu xalaatee loolee dafa dal di nangu li ko Lat Joor sant ngir yaakaar na ne ñëw foofu di àtteel Lat Joor ci yoon lëf la loo xam ne lii luy dimbale diini la te it bu ko nanguwul day wut keneen koo xam ne kii diine du ko jaral dara mu di ko àtteel àtte yoo xam ne yi du doon yu jub di ko àtteel ci bakkanam rek loolu moo taxoon mu nangu loolooy ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam lan la wax dafa wax ni la in yahdiyanna allahu bika rajulan wahidan xayrun min ad dunya wa ma fiha yàlla jubale ci yow kenn nit rek moo gënal yàlla àdduna ak li ci biiram loolu moo taxoon bi ko Lat Joor proposé loolu mu daldi d'accord ak moom ci nangu ko nekkal qaadi moom sëriñ Mor Anta ñu daldi koy indi dëkkal ko fu ñuy wax pataar Lat Joor nekk cilmaxa mu may ko bisub altine di ñëw ci moom di ko atteel yeneen bi yi ci des yépp mu nekk ko di jàngale ci ay taalibeem ci pataat ak di bay ci loolu nag ci la Lat Joor amee relation ak Xaadimu Rasuul Lat ay xeex yu ëpp ko doole ñu rey ko di ko xee di xeex ak moom jàpp leen ay jaam séddale leen nag ñi nga xam ne ñii ñoo doon xeexal Lat Joor comme Birima Koddu Maram ak Amadu Maduma Xureja bare ñaan bo bi nga xamee ne ñooñu séddale na leen jaam yi Sëriñ Tuuba Sëriñ Moranta Sali Sëriñ Tuuba daal di ne Sëriñ Moranta Sali xamalal Lat Joor ne ko ju li mu def du jub lu tax du jub moo di mu jàpp te ñu doon xeex ak moom te àndoon amadou ñooñu duñu ay jaam warul leen a def ay jaam te it lu jubadi la def ba mu waxee loolu te itam bés boo àndeeg moom ci jubadi yi bu saxalee bu jubaju bi saxee rek yàgg moom a ci am dal di koy xamal lu mu gën a gaawee ne ko li nga def du aw jub wala ma tàggoog yow sëriñ Mor Anta Sali dal di xamal loola Lat Joor Lat Joor dal di dégg loola sama doom mu ne ko mu daal di koy wax majaxate kala dal di woo xaalu yépp wax leen ko xaalu yépp maase ne ko ngóor sii de boo ci jógul sàkk ko pexe dana la dana la dana la mankil te dana la dana la defi loo xam ne lii ëllëg ci biir danga ko rëccu sàkk ci ay pexe nan nga ciy sàkke pexe nag moo di wool póore yépp ñu dajaloo nga woo leen nga nga kii leen mu daldi sant ma jaxate kala ne ko na nga woo fóore yépp ñu teew te woo Ahmadou Bamba mu ñëw wax fan la dëkk ba ne jaam yi ma jàpp ci ñi ma doon xeexal Amadou Seexu ay duñu ay jaam fan la ko teg ba nga xamee ne ma jaxate kala def na loola ñu woolu sëriñ Touba mu ñëw ba ñu wooloo sëriñ Touba sax dafa jëkk gàntu bind lettre Lat Joor دنگ دادي كوي خمال نكو لأني لم أتساقل عن إتيانكم من تكبر ولا جبروت ولم أهب مقاتلتكم ولم أشك في فتواي فأهاب مناظرة العلماء ولكن الطريق كما قال أحد العلماء لبعض الأمراء يؤتى ولا يأتي بأحد إذ ناسا لو لنجم وولو بانتو ما نيو غير خيب لا أك loolu taxul ma def loolu gantuwuma ñëwit ngir ragal ne ay fóori laa fi fekk te bu ma ñëwee duma ma xam lu ma leen di wax lan moo ma tee ñëw loola moo lan aw yoon des say jaar waaye du jaar ci kenn aw yoon des say jaar yéen ma war a fekk si waaye man waruma fekk kenn bi nga xamee ne loolu am na sëriñ Mor di mora mora di ko di maslanteeg moom di maslanteeg moom ne ko demal wuy ji rek ba mu muñ ci ñëw bi mu ñëwee wuy ji ko ma jaxate kala ne ko yow yow sëriñ yow dégg naa li say bàyyi atte yaay ki ko weddi ne du dëgg sëriñ Tuubaa joxar bi ko ne ko ba ma kat te bu ma ko waxat te du ma sa morom xaalima jaxati daal di jóg fa mu fa mu toogoon daal di këlëb daanu ko suuf di xam tiit di lox mbir ma daal di dog foofa ba mu delloo ci la binde xasida googu na di ko tuubal ci lay waxe nan eh, qawli ba ma wa bu ma eh, eh, alan kafawta bi qawli inna nii meruma waaw da da xasida ga mu ko bind da caa def lenn ci wolof lenn ci arab